ci déglu bi ñu ngi fii nag ci jumaayu maam xale Amar ci bëccëg bi nga xam ni moom mooy juma ji mujj avant gàmmu Pire. Euh, mu mel ni nag kilifay piir yëpp ñu ngi fii ci jumaayu maam xale Amar Fall ci fàttali nag bokk na ci jumaa yi nga xam ni moom moo gën a yàgg ci sous région bi ndax ñu bëri nee nañu sax. jigéen na juróomi téeméeri at sëriñ bi nag mi ngi nii di dugg si ci jumaa ji ki nga xam ni moom mooy euh, xalif général de piir mu fas yéene ñëw nag daal di teewee julli gi nga xam ni moom moo mujj balaa ñuy dem nag ci gàmmu Pire kon son excellence donc euh, sëriñ bi mi ngi nii di dugg si ci jumaa ji ànd ak ñi nga xam ni ñoom ñooy stafam ànd ak ñenn itam ci njabootu euh, maam Tafsir euh, Abdou Cissé kon mi ngi noonu di dugg ci jumaa ji sëriñ Mansour Cissé xalif général de Pire. xamnaa ni ci kanam tuuti rek bu àggee ci place bi nag ñu commencé li nga xam ni moom mooy julli gu mujj laata ñuy amal nak gamu biir bi nga xam ni suba la ci samedi gi yemoo ak juróom-ñaari fan ci weeru décembre أنت الحبيب الذي ما زلت مرتضعا نكسب سري مستوى عند الإله وأنت الحب ذو الكرم قصب قصر المصطفى أنت الحبيب الذي ما زلت مرتزعا hindal ilahi wa antal karami bismil ilahi jugu waye di kaisang berde sering mustafa si sepir dan imam tafsir si wallahi bismil ilahi jugu di way di kañ sang bi Sëriñ Moustapha Cissé Pir doon day maam Tafsir Si waa wallaay bismil illaahi ñuy jóg di way di kañ sang bi Moustapha Cissé Pir doon nay maam Tafsir Cissé waaw wallaay bismillaahi ñu jóg di way di kañ sang bee Sëriñ Moustapha ci biir doonay maam tafsir fii nii day lakk daara maam xaale Amar Fall parce que xalaatoon nañ ni dafa am leneen luñ fiy comploté ci la góor gi gas kàmb xoot xóot fii ci bërëb bi daal di jël téere yi ëppoon solo fii ci daara ji daal di ko fi suul moo tax ñu sàmme ko nii def ko benn euh, verre daal jël bant bi samp ko ci digg bi muy garabu yiir goo xam ni euh, ëpp na 400 ans. kon euh, julli nañu ba pare nit ñi ñu ngi génn euh, di dellu seen kër euh, sama sëriñ s'il vous plaît yaa ngi ci Dabakh TV mu mel ni julli gi moom moo mujj laataa ñuy def gàmmu Pire yan sentiment surtout moo lay animé booy dugg ci bërëb bi. waaw ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar. man na fii laa dëkk maanaam du ma fi gan àjjuma moo fekk fii laay jullee daal waaw mais nii ñu teewee daal baax na nii daal lay demee chaque àjjuma ko fi mom juma bu bari barke la barabu ñaanu kay la donc julli nañu ba paré def nañu suñu farata euh, ñaan yalla ñu téyé ko yaati de ñu bari bari ko xana ñaari cadeau rek ci borom bër bi borom yër gi muy mam xalé amar fall waaw barab bi euh, mom sama mam la mam xalé amar fall sama mam la donc barabu ñaanu kay la donc ñu bari dañ fi ñëw di ñaan ñaan yalla rek yalla tass ñu ci barkem et puis lu fi ñit ñaan yalla may la ko ci daraaje rasulullah sallallahu alaihi wasallam jërëjëf kon euh, rek euh, ñuy euh, nekk fii ci jumaa yu maam xaali Amar Fall tubaarkaale tey moom jumaa ji fees na del ñëpp ñëw nañu julli si kon xanaa rek ma laaj sama papa ji moom it mi ngi génn ci jumaa ji rek di la wax góor gi asalaamaaleykum Dabakh TV mi ngi lay nuyu bu baax mu mel ni julli gi moom mujj avant gàmmu Pire yow julli gi ban yëg-yëg nga ci am tey. yu yëpp neex rek. dafa mel ni dafa ala daaw. waaw daa yëpp ñoo ko yokk ñëw dañuy ñëw di wut di ñaan di wut si bànn bànn boo xam ndax fa yu bari yàlla loolu ñu ne yàlla ko yàlla nangu rek. Ah, lii mooy la. ne nee ñu kaamil kaamil yi nga xay ko woon lakk muy ba lat yooyu bi tubaab bi ñuy bëgg koo yàq lu gas suul fii nga xay ko gis ay bë mu nekk ay kaamil yi mu nekk mooy ba kay ñu sàmm ko seen nii mun na gaa yi siyaare buntu baa ngi nii bu ñu ko nii loolu fi ñaan def ko kon euh, yàlla na yàlla mottali euh, yéene yëpp nangu ñaan yëpp euh, gis nga ko yéer gi taalibe yi ñu ngi toog ak ñi nga xam ni rek ñoom ñoo ñëw pour assister 117e édition Gamou Pire fii moom dafa nekk bërëb boo xam ni boo ñëwee piir ba jóge fi te taxawoo fii ñaan fi dafay mel ni dafay am lu des ndax maam Xaale Amar Fall moom moo ubbi la première université coranique du Sénégal wax nañ ëpp na 400 ans ñi nénañu ëpp na 450 ans kon euh, rek mu doon euh, Cheikh Ahmed Tidiane kan fi ci Pire and ci ak euh, Khali Touré ak Pape Ndongo Pouy pour Dabakh TV merci beaucoup. di koy sang bee Serigne Moustapha si se biir doon nay maam waawalaay ki ma tax di way moom bégloo na mag koom bégloo na ndaw kii ku mu bégloowul danga ko réere mbir